طبيبي قريب هل سقامي تسمع يقابلني يوم المقفى المشفع أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آماني كما أتوقع سنة أردر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

waaye juddu ci alaaqa bu bu wér baayam di Baye Mahmoud Diop bi nga xam ne kenn la ci kàngaam yi àndoon ak Cheikh Ibrahim radiallahu anhu mu juddu ci loolu mu tuddee ko ko jox ko ko. xale bu sabar la woon bu yëngatu. te bëggal boppam it jàng. sama baay yóbbu ko. oo baay Abdu mu ñëw. Baye Ablaye Diop mu ne ko baraam mi yotal ma ko sëriñ bi mu ko mu dalal ko jàng biñ koy jox baay boobu matagut a dal jàng moom oustaz sax nettali nañu ne biñ ko indee ci peron bi amaa ñu koy jox maam Roqi Njaay Baye dafa dégg xale buy jooy ci peron bi mu ne ko kan la ñu ne ko Mahmoud Diop de moo indi lim la tuddee woon mu ne Mahmoud de dafa bëgg joxe rek waaye kooku day matagut a dal jàng kon teel naa ñëw noonu la ko baayam ñëwee jox baay bàyyi na ko nag léegi dama bugg nga nekk continuité sa baay parce que li ma bugg a def ci sa baay ak li ma ko bugg a fayee xajut ci dund doomi aadama donc dama bugg yow gannaaw sa baay nga nekk continuité am li ma bëggoon a def ci yow ma continuer ko ci moom donc li ngay gis nii yëpp liggéeyu baayam moom moom moom oustaz la baayam moo ko ko liggéeyal mais xajut ci dundam loolu mu continuer ci dund maam ko teg ñu defaral ko ba mu di ko tëdd. ñun dañu màgg rek fekk ko fii ci kër gi ah donc fekk comme ni ma fekkee El Hadj Abdoulaye ma Matiyan suma mag yëpp ah ni ma leen gisee rek noonu laa ko fi gisee ci kër gi donc bala ma xam ne du suma mag dina dem ba am xel door a xam ne ndekete du du suma doomi baay waaye ñoo bokk yëpp daal. Oustaz Ibrahima Mahmoud Diop nag ñëpp xam nañ ko ci njëriñ yi nga xam ne. jëriñ na ko mbindee yi xusuusan ñi nga xam ne ay taalibe baay lañ di ay mbokkam ci baay jëriñ na leen ba sonn ci xam-xam yi nga xam ne moom la baay doon jàngale ci xam yi nga xam ne itam moom la baay bind lu ci bëree bëree bëree bëri lu ci lëntoon rek leeralal na ko nit ñi mu wattu alquran mu jox ko shahada boo xam ne moo ko bindal ci jamono jooju jàngal ko ba óolu xam-xamam di ko waxloo ci mbooleemi géew yi xam-xam bu rëy te yaatu te rafet te leer te yooyu dendale ko boole ko ame ko daanaka kenn mënu ko kon ku ko man dañ la koo man loo ku ko ko man loo mooy baayam sëriñam xaritam turandoowam soppeem àndandoowam ki ko dénk lu bari lum nëbb ak lu bari lum ko may mu feeñal ko mu Cheikh Ibrahim Alhaaj Ibrahima Niass mi xam mooy turandoom bàyyi jox na ko lijaasa bi nga xam ne kum ko daan jox daf lay wax ne haasihi hiya tijaaniyatu kulluha mooy fi mu dajale sanadam sanadam yëpp muy juróom fukki sanat ak ñaar yoo xam ne bàyyi am na ko ci tariqa bi bàyyi jox na ko ci ndigal te këyit gi nga xam ne moom la bàyyi bind Sidi Ali di ko wax ne ko suma tukki mii ñii ak ñii laa jox ndigal turam mu ci kayit googu te maa ngi ko amee. al oustaz Ibrahima Barham Mahmoud Diop te alxuraan waxoon ñu wa ma shahidna illa bi ma alim na ñu liñ xam ci moom mooy la ci jiitu ab julit la la ca tege mooy euh, ku ragaloon yàlla la ca tege mooy ku amoon xam-xam la am xam-xam gi nag moo ko yóbboon ci mu bëgg ñooñ xam-xam di ci liggéey di ci gont di ci xëy li mu xamoon ci Cheikh Islam Hadj Ibrahima Niass yaatu woon lool te itam mu xamoon nu mu koy joxee nekkoon ku pédagogue bëgg xam-xam ba tax mu bëggoon borom xam-xam yi man mën naa ne samay seede foofu lay jëm استاذ برحام من ماغي خامتي موم ديبي 68 بوري 67 68 مي خامتي من بعيد دو خامتي بو جوك مي داما باسكو بوبا من داما نيك طالب كولاخ دي جانغي فني واخ سار نجوغاري كير علي احمد نياي عروت فوف لا دون جانغي موم مو نيك مدينه يالا ديف نك مو من عرب لول تي بوبا نيون طالب يي داني بوغ كو من عرب من مناخني sama njàngum arab oustaz Barham eh, bokk na ci li tax ma jàng làkk arab loolu moo tax eh, ajjuma jot dañ naan ne Medina ngir ñaari mbir benn gi cheikhul islam alhaji Ibrahima Niass bu jullee ba pare ba wéeru ci bar bi di jàng xadisam yu bari yooyu loolu da daan dem di ko seetaani ñaareel bi mooy bu ñu génnee dajeeg oustaz Barham ci mbedd muy làkk arab parce que boobu defe naa eh, am na téere bu mu doon jàngal taalib yëpp ñu ko bokk bu dul durey di di daaliye nga xam ne ñëpp ko xamoon moo ko doon jàngal yëpp oustaz Barham cër yu bari ñoo ko seq kan mooy oustaz Barham kuy tudda Barham di nga tudda cheikhul islam e cheikhul islam El Hadj Ibrahim radiallahu taala wa nafaana wa ku ne koo xamante ni moo ko yaral boppam ci ñaari yar nag yar na ko yaru biir waaye yar na yaru biti su ma nee yaru biir nag kooku leneen la moy ni defal na ko tarbiya defal ka tarqiya andak mom ku xol bu jeffe def rek nga xamni mak duggal dugal na loxom ci mom maulana Cheikh Ibrahima Niass Cheikh Barham Diop dafa bok ci ñi nga xamé ni si ay chance am la bok ngir lan ngar namu namon ci mom namu ko uufee namu ko yare ngir la mu namm ci moom amul lenn loo xamee ni li échec na ci lépp feeñ na na nga xamee ne moom noonu la ko yaakaaroon ci moom yàlla def lu si sutura dara manqué wu ci. loolu moo tax mu jël ku maw nii Cheikh Barxam Diop donte ne sax ay atam bariwul boroyaay boobu. ndax a euh, moins de trente ans ay à peu ay vingt cinq ans si environ donc mu ko teg ko ci wetu un chef d'état de renommée mondiale du Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah xaritu Cheikh Ibrahima la woon xaritam dëgg dëgg ba nga xam ne daana ko dimbanikoo ci ay ñaan pour mu ko ñaanal daana ko dimbalitoon kam ci xalaat aussi.

dañuy roy dañuy dañuy dañuy roy rek dañuy roy tubaab yi rek mais duñ gis seen bopp jamais wa salaamun alayka min waafid ifriqiya alxadra الذي يرى في مجلسه دائما تشرفا أكثر منه تدريسا ومن إخوته في الإيمان والدعوة ولا أشك في أن كثيرا من خيام موريتانيا وشوارع السنغال رغم مشاكل ينصتون الآن إلى هذا الدرس لما ألفوا ويألفون من منافع هذا الموسم الخير فبارك الله فيكم Au mois de mars 2011, nous nous sommes rendus au, euh, à la faculté des sciences sociales et humaines de l'université de Mohamed V Agdal. Et en discutant avec le, le doyen de l'époque, euh, Abdrahim Benhada, qui est historien, professeur depuis longtemps. Il nous a fait un peu l'historique des études africaines au Maroc. Alors, il nous disait, bon, vous savez, euh, il faut savoir que euh, notre interlocuteur principal à l'époque, qui, a, qui a été l'espèce de hôte pour l'Assemblée générale, c'était l'Institut d'études africaines. Parce que la vice-présidente du Corée de l'époque, Fatima Ara, qui est actuellement la présidente, était la directrice pendant un temps de l'Institut d'études africaines et elle, quand elle n'était plus directrice, était encore professeure dans cet institut-là. Et donc, c'était un peu notre introduction. Mais on a fait le tour pour rencontrer les, autres universités, les facultés. Alors, à cette euh, institution, euh, le professeur Bernard nous a dit, vous savez, en fait, les études africaines sont parties d'ici, de Agdal, et, et que la ce qui a déclenché le processus qui a mené à la création donc, de l'Institut d'abord, de la, de chaire, et ensuite de l'Institut, c'était une conférence euh, qu'un alim sénégalais avait fait devant le roi Hassan II. Elle dit que d'habitude le roi ne parlait pas après les conférences, les durs sassaniens. Il, venait, il s'asseyait, il écoutait, puis il partait à la fin. Mais cette fois-là, il a écouté le professeur, le alim, il disait, et il a été tellement impressionné qu'il a pris la parole exceptionnellement euh, dit, mais là, on a entendu ici quelque chose et eh, eh bien, qui est tellement important qu'il va falloir qu'on se mette à l'étudier et qu'on crée les conditions pour que ce savoir là soit euh, enseigné, étudié, enseigné et dans les universités marocaines. Et c'est là qu'est parti un processus qui a mené à l'adoption d'un décret. Et, après, ils ont ouvert donc la chaire, créé la chaire d'études africaines. Ensuite, c'est devenu l'Institut d'études africaines qui est encore en existence au Maroc. Alors je qui était cet alim sénégalais. Il nous dit Ibrahim Mahmoud Feu Ibrahim Diop a aussi assisté aux différentes causeries euh, religieuses depuis euh, depuis euh, des décennies, donc principalement la causerie qui a été à l'origine de la création de l'Institut des études africains, car après la fin de la présentation d'Abraham Diop, Feu Hassan II, roi du Maroc, a décidé la création de l'Institut d'études africaines. قبل الختم أريد أن أؤكد للعلامة صديقنا الشيخ هل أننا نزولا وامتثالا للآية التي شرحها اليوم رسول منهم يتلو عليهم آياتي فتحنا كل إمكاناتنا لجميع الطلبة الأفارقة حتى يتمكنوا من تعلم العربية جيدا ومن الإحاطة بجميع فنونها علم منا بأن القرآن والحديث هو إذا كان أحسن مدرسة للفقه والعلم والدين والعبادة فهو كذلك أحسن مدرسة للبلاغة Eh, eh, eh, C'est le professeur Barham Diop qui eut l'idée de la création de l'Institut ainsi en 1987, plus précisément le 15 septembre, sur les directives de feu Sa Majesté le Roi Hassan II, que l'Institut a été créé l'Institut débuta ses activités en 1990 comme centre de recherche en sciences humaines et sociales portant sur le patrimoine commun maroco-africain et les différents aspects des civilisations, des langues et des dialectes africaines. sénégalais euh, sénégalais bu sénégalais sénégalais surtout Euh, euh, oustaz Barham Diop euh, xamna ko bala may ñew Sénégal waye contact bi ma am ak mom aéroport la amé xamna ko bala may ñew Sénégal ndax man Maroc la nekkon yag nyu fa lol fofu la doon jangé té mom da lan ñew di bok ci ñi roi Hassan II yalla nako yalla yàlla dan invité pour ñu bok ci lolou ñu tuddé won drusul nga xam ne ay boroom xam-xam danaan jóge ci àdduna bi yëpp bu ñëwee di waxtaan ci wàllu diine Assane moo ko daan jiite doom ji sax mu ngi continuer di ko def donc euh, ñun biñ nekkee Maroc dañ daan gis ci télé bi di gis ci journaux yi euh, oustaz Barham Diop mu nekk ci ñi nga xamante ne dañ daan bokk ci mbir yooyu ñu woon ko lool mu daan ñu siggil itam en tant que nit ku ñuul en tant que sénégalais. nee naa nekk Maroc di jàng yaakaar naa ni muy ñëw di participer ci lu ñu tuddee ak durusul xasaniya ak ramadaniya ci jamonoy Sa Majesté Hassan II doon ànd boobu Cheikh Nazir ñas moom yàlla na yàlla yokk ko ay leer muy macha allah le lendemain kuy sénégalais kuy africain rek da nga ndax la fay daje ci kàngam ci àdduna bu barxam defee darsam ba génn ëllëg sa coow parce que jafe na boobu jamono nit ku ñuul taxaw ci xeeti boroom xam-xam yi fi doon jóge fépp te ku ne xamoon na Sam Roi Hassan II ni mu nekkoon ku bàyyi ku bàyyi woon xam-xam mais tegu ci kanam loolu dund nañu ko mu am lu mu def ci ñuul te jeunesse bii tamit dafa fekk ne bàyyi mi ko yar. Euh, philosophe moo doonoon bàyyi mu ne soo amee ca garage wu mécanicien ya benn mécanicien boo xam ne da nga koo yar ba def ci moom jikkoy lislaam pour kooku jotali sa message mooy gën a yomb yow nga jottali ko yow parce que mécanicien bi nekk ci biir mécanicien yi wax ak ñoom mooy gën a yomb parce que seen nawlé la bàyyi ngi nettali ci bandam bimu démé demee Pakistan di wax khutba yi nga xam ne moom def na ko foofu wax na ne invité nañ ko foofu mu def fa fukki xutba ak ñett waaye bi ko waroon na fukk ak ñeenteel mu ne dañ koo invité mu ñëw ci mbooloo gis ne mbooloo mi ndaw yi ñoo fa gën a bari mu ne ma wax baraam Diop mu wax ak ñoom ndax ndaw moo gën a mën a jeexital ci ndaw. métier mu nekk ña nekk war nañuy woote ci yàlla. ndax ku nekk bu dégloo nawleem loolay gën a jeexital ci xolam mu dégg ci keneen. ndax kon nekk. su déggee dégg ca nawleen loolaay gën a jiixital mu déggee ko ci keneen. ba muy mbooloo moo xam ne ay waxambaane a lañu. ba muy mbooloo moo xam a ay waxambaane rek lañu. xam ne waxambaane wax a dégg. mu xam ne waxambaane day wax ñu dégg. moo gën a jiixital ci seen xol. moo gën a jiixital ci seen xol. fu muy waxee. Ibrahima Diop laa faral di faral di àndal. su ndaw yi xëppee mu wëtt ko mu wax. lu tax mu jógee ci daara daara alxuraan hadis nangam ak nangam dem àgg ci niveau pensée Lénine Kwame Nkrumah Karl Marx Engels ah, ñoom ñëpp mu dugg ci seen pensée ba xam ko xam boo xam ne mun na dem ba ci bind benn livre parce que moom du dem ci lu doonul ndigal hmm? fam yëpp du mënti mu ngi am mu ngi tënku ci bàyyi rek lu bàyyi wax loolu la wax lu bàyyi waxul waxu ko te loolu ñaari mbir la boole dafa boole xam-xamam bu mu óolu waaye boole tim beneen mbir bi nga xam ne mooy tax xam-xam oote jëm ci yàlla gën a am jeexit muy ndigal ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent yàlla la waaye yàlla daf ne ko daa'iyan ila allahi bi iznihi oote jëm ci yàlla tukkee ci ndigal yàlla kon oote balaa gën a am njëriñ na fekk oote boobu jugee ci ndigal. Baye dafa bëggoon ko am qualité dafa bëggoon ko am fulla te itam dafa bëggoon feeñal liggéeyam ci doomu adama yi ndax missionnaire la boo xam ne yàllaa ko ebal ci doomu aadama yi mu nekk wuutu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pour liggéeyal islam liggéeyal ak doomu aadama humanité loolu nag mu bëggoon fu mu ko feeñal li ko yàlla jox. te feeñalukaay bi nag jafe mu gis barxaam nag di feeñalukaay loolu taxoon mu sawar ci barxaam. moom daal ci gàttal daal moom karaama bàyyi la maanaam bàyyi daal dafa mel ni ci ustaas kenn dafa bokk ci ñi nga xam ne bàyyi ci la bëggoon a wanee ne man yàllaa ma may ba mën naa defar nit koo xam ne addina yëpp ko yéem te maa ko defaral sama boppu kenn fekke yàlla mayoon naka nag alfasaaxa ak bayaan amoon na xam-xam mais xamoon naa nu mu koy utiliser. mën nga am xam-xam te doo xam noo koy joxe joxe na ko ci fànn bu ne nag ci ni ak niveau bu ne bu muy wax li yonente bi wax ni xaatibu naas ala qadri uqulihim moom def na nag gori bu ne am na nu mu waxeek ñoom xam nga nee naa la durus asaniya beneen niveau la intellectuel nga ñëwaat feneen muy beneen mais bu ci nekk di nga gis ni dina indi xam-xam te du déborder te tim naan na fa mag ña naanal nañ ko fa ñu nàndale mag ñi parce que ku bàyyi yar am fi mu jaar ak yow ah baram bo xamanteni du won ko ordinaire parce que andul won ko ordinaire ko yalla kay def. Ibrahima Diop dafa demone Makka. bàyyi Ibrahima Diop mii dafa eh. demone Makka. rabita bañ fa sampoon. rabita bala xamne mom lañ sampoon ca Makka. waron nañu dajé ci weer wi passé fekk man mënuma dem. waron nañu dajé ci weer wi passé fekk bàyyi man da dem. waaye ba dañ ma tontu ne su ma demul daal foog ma yónnee Ibrahima Diop. waaye ba baay joxee ngant dañ ko ne dikkut fokk da nga yabal Ibrahima Diop mu ñëw. ca guddi tey gii la soog a ñëw. ca la borom Diop mi demoon guddi tey ngi nii. Euh, Oustaz euh, Barham Diop maa ngi xamante ak moom ci euh, Euh, ñëpp xam nañ ne moom euh, def daan ànd ak Cheikh Ibrahima Niass di dem ci li ñuy wax Ligue islamique mondiale muy euh, mbootaay goo xam ne ngi ñu ko créé ci 1962 ngir mu boole mbooleem ñi nga xam ne ay ñooy ay njiit ci réew jullit ñi ngir ñuy dajaloo di waxtaan ci intérêt nit ñi di décider ngir loo xam ne lii day tax l'islam jëm kanam man nag fekk na boobu étudiant laa foofu yàlla dogal 1973 ñu daje màkka comme euh, ligue bi daan def euh, at bu nekk ñu def benn espèce su colloque euh, dajale fa ñu bari ci borom xam-xamam jullit yi ñu daje ñu waxtaan ci solo mbiri jullit ñi 1973 ñu def nu mel noonu bi ko defee ma dem ma dem teewe ji ko bi ma teewee dégg ñuy wax wax yu am solo ci surtout sax mbirum jàngale ma gis ci kenn koo xam ne kii sénégalais la mu waxtaan waxtaan wi neex ma lool ma xaar ci bunt bi ba mu génn bi mu génnee ma nuyoog moom euh, wax ko man maay kan mu wax ma moom tam mooy kan euh, foofu lu ñu xamante ci buntu ba euh, daal di fay fasante kóllëre ngir wax ju rafet jam fa wax te yàlla dafa dogal ba mu ko waxee ba ca suba sa foo daanaka foo dox ci màkk rek dégg ñuy nettaliwaat la mu doon wax ak di ko yéem loolu nag tax yokk sama ak cofeel ci moom. kër Baay rek la jàng waaye nag topp ko nag yàlla yi defal ko ci buntu mu xam li mu xam. ci wàllu diine yàlla defal ko talent bu dee wax arab ñëpp dañuy bëgg bu dee ci arab yi dañuy jaaxle kii kan man man waa dara man ay na jaar ñu ne min Sénégal kii fu mu kii kana kii fan la jóge ñu ne Sénégal la jóge كان من بين الموضوعات Je l'ai interviewé sur des sujets parmi lesquels on peut noter l'islam en Afrique, les rôles des oulémas, le pèlerinage, la zakat, la jeunesse et l'islam. Il était jeune en permanence. L'islam et la langue arabe car il n'y aurait pas d'islam sans le Coran et pas de Coran sans la langue arabe. Notre professeur était sans complaisance le noir africain qui maniait le mieux la langue arabe. doon tam nit koo xam ne kii dafa ràññu ko ci dégg arab loolu moom àdduna si yëpp xam nañ ko daanaka fu mu masaa dem bala ñuy déglu sax li muy wax dañuy déglu li mu koy waxee maanaam arabe moom amu ci woon dend ci maîtrise ko yàlla may maîtrise langue arabe daanaka loolu moo tax arabe yi bu masaa ñëw Euh, duñ duñ bëgg sax mu mu jóge fa ndax euh, ndax euh, yàlla yolam ko yàlla may Moi, je me souviens avoir, avoir rencontré des gens qui m'ont demandé si je connaissais Ibra, Ibrahim Mahmoud Diop. Même en France, il y a, y, un Libanais que j'avais rencontré un jour qui m'avait dit Est-ce que vous connaissez celui-là Je lui dis bien sûr. Il me dit Sa connaissance de la langue arabe est vraiment extraordinaire. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui fait euh, l'unanimité. Il a même parlé en Égypte un jour en présence du président. Hosni Moubarak et d'autres personnalités où il a fait des discours en arabe. Sa connaissance de la langue arabe est vraiment extraordinaire. ba muy ñëw Égypte ñun fa la ñu fekk keroog dafa fekk ñaari ministre di ko xëccoo Mah Diop mooy ministre bi amee mbiru diine ci Égypte ki nga xam ne moo amee mbiru qui ci Maroc ñoo ñoo ko invité léegi ñu war a def benn bés boo xam ne dañuy teral mbooleem ñi mokkal alquran Égypte invité ils borom xam-xami àdduna bi après ñu tànn oustaz ne ko nag yaay wax ci turu monde islamique mboolem ñi nga xam ne ñooy monde islamique yaay wax ci seen tur keroog yàlla def na bi muy solu sax mu ne ma bàyyi ndax bii baax na keroog ñoo ànd jóge ko hôtel ba ba àgg waaye fi ñu ci gën a neex mooy fi mu waxee ba monde islamique yëpp jug di tàccu Moubarak tourné sésame bi parce que mooy jumla jooju moo waxoon muy phrase bu garaaw kittu artabiku marratayn marratan id أسر إلي أنني شرفت وكلفت بإلقاء كلمة المكرمين ولكن سرعان ما زال الارتباك إذ تذكرت أن ذمة المؤمنين واحدة يقوم بها أدناهم آية بما فات ma وخي ko waxi yonent bi sallallahu وسلم mu ne li nga xam ne moom mooy kóllëreeg jullit ñi ñëpp ka gën a néew doole ci ñoom mën na koo gàddu ba ma ko ko rek la tremblement ba dañ ma concentré waat waaye nag yéen monde islamique yëpp maa ngi leen di wax tey ne leen benn amoon na benn xale benn jeune ca biir Sénégal bëggoon a jàngi monde araab ci jamono colonialisme bi benn fonctionnaire bu ndaw baare ay kayitam baare ay kayitam ba mënta génn jàngi waaye mu dogu taxaw ne danaa des suma réew jàngee suma réew pour won àdduna bi yépp ne leerul lislaam leeru xam-xam amul benn loxo bu ko mën a baare ndax moo jóge woon Medina ba agsi ci ñun xale boobu tey moo taxaw tey fii ci Égypte di wax ci monde islamique dem nañu Mali Guinée euh, Burkina Faso euh, Niger Niger bi oustaz di dem foofu la dafa fekk association yépp taxaw lank ni lii euh, dañuy wor l'islam oustaz bi bu ñëwé def ak ñom conférence fukki association ak ben ci saa dañu daldi di wa daldi ñom dañuy regrouper wu def ben regroupement buñ tuddé tuddee groupement des associations islamiques pour la population et le développement GAIPD. dama voyager daw jéeg ben voyage boo xamné ben président moma ma invité woon dañoo niroo tur ñu wax Mamoun Abdou Qayoum bu Maldives waaye lama gëna neex mooy dañu toog gannaaw bu ma recevoir bureau mu invité ma reer këram ñu toog di waxtaan mu na ma man daal am na benn waay daal man war na war nga koo xam yaakaar laa ma ne ko kan la mu ne ma Ibrahim Ibrahim lañ ko Ibrahim Mahmoud ma ne ko Ibrahim Mahmoud ban mu ma waa xaaral attends daal dugg ci sàmbaram génne ma loowu cassette vidéo yoo xam ne ñu ngi ci def photo Ibrahim mu na ma bii ma ne ko kii mooy Ibrahim Mahmoud Diop Sénégalais la modon secrétaire particulier buy and ak cheikh ibrahima mu ne ma kii daal l'islam amul ku mel ni kii en tant que chef d'état en tant que chef d'état mu ne ma kii te docteur la moom azar la jàngee ba génn mu ne ma l'islam amuñ ku mel ni kii mu ne ma man moom kasetam yëpp la seetaan conférence yi muy def Maroc yëpp maa ngi koy am mais bu ma mënoon am sax ya muy def Sénégal ma am ko ëpp la xam-xam ëpp la wërsëg ba noppi gën laa yaru oustaz ku yaru woon la noo mën a mel boo ñëwee dana la jox sa cër dana la jox sa wàccuwaay tek it ku oyofoon la oyofoon na ba boo ko fekkaan ak njabootam day mel ni ku toog ak ay moromam. yàlla may na ko xam naa am na ñu ma gën a fasaay ñu ma ko gën a xam ñu ma ko gën a miin mais bokk na ci yu ma jàngee ci moom fexeel ba sa noon bu mu la yàpp ba bu ñëwee wax la mun la wax yeggee lu nekk mais oyofal it bay say xarit buñ la ragal a wax dëgg loolu def ko moom da ko doon dundee bu dee yàqu ñàkk fay daal tax a jug doo ñeme oustaz bu dee dëgg nga nekk. da nga def nga jóge ñëw fekk mu oyof mu yaatu. oustaz boo toogee ak mom ci ci lay yar ci la lay yar ci nu muy waxee ci nu muy toogee ci ni muy lekkee ak ci ni muy ni mu lay jàngalee ni mom ku woyof la te doo ko yab moom ku woyof la mais doo ko yab et là ça ça ça ça c'est très important. Suivant les pas de son maître Baignas Niass, Oustaz Barham Diop durant toute sa vie, a contribué à l'expansion de la Tijania dans de nombreux pays. Il est inconcevable de parler de la Tijania sans faire allusion à Fès. En effet, c'est à Fès, cette ville marocaine située à 180 km à l'est de Rabat, que repose Cher Ahmed Tijan, le fondateur de la confrérie Tijania, qui porte son nom. Nous avons visité son mausolée et par la même occasion, l'un de ses arrière-petits-fils a bien voulu témoigner sur Oustas Baram Diop, qu'il a connu. Cheikh Ibrahim Mahmoud Diop هو شخصية معروفة في هذه il فالكل يحبه والكل يتعامل معه لأنه كما يسميه الكثير الأستاذ فهو أستاذ في et وفي علمه حيث أنه رغم كونه قد تخرج من مدرسة من كبرى المدرسات الإسلامية والتجانية ألا وهي مدرسة الشيخ إبراهيم نياس رحمة الله عليه فإنه كان رجلا عصاميا كون نفسه بنفسه وكان داعية بحاله وبمقاله فقد كان باحثا في كل الأمور الدينية والعلمية فكان شخصا محبوبا وعلاقته مع الكل هي علاقة يعني علاقة احترام وتقدير والمغرب يعرف الشيخ إبراهيم محمود جوب كما هو يعرف المغرب فعلاقته بالمغاربة وبهذا الشعب علاقة يعني آه، وطيدة فالملوك والسلاطين في هذه الدولة يكنون له كل الاحترام وكل التقدير كما كان أيضا هو يحبهم محبة خاصة وأكبر دليل على ذلك هو إحياؤه للكثير من الدروس في حضرة أصحاب الجلالة الحسن الثاني ومحمد السادس نصره الله فكان حضوره دائما مشرفا للإسلام والمسلمين وللطريقة التجانية وهذا ما نعرفه عن الشخص à travers les 20 ans que j'ai côtoyé notre cher, surtout le mois de Ramadan, euh, la période des Douros Hassaniya, le Maïmouna, euh, vu que je prépare une émission, Fedele l'Islam, sous l'ombre de l'Islam, avec les grands chers, machaïrs, et les ulama qui viennent à travers le monde entier vers euh, Doros Hassani El Maimouna. J'avais vraiment l'honneur d'interviewer plusieurs fois chaque année euh, notre cher avec beaucoup de vraiment de, beauté et de bonté et d'intelligence spirituelle. Il vient pour euh, vraiment nous donner ces, paroles d'or, pleines de lumière, pleines de miséricorde, pleines d'influence et de l'impact, pleines de vraiment de beaucoup de savoir. Et lorsque je dis le savoir, c'est une lumière de notre Seigneur. C'est une lumière euh, qui vient de la lumière divine, Allah, Allah samawati wal ard. Et on sent vraiment qu'il y a une lumière qui règne, qui vient de son cœur et qui se transmet à travers son visage. Et ce qui est beau, c'est que les gens qui travaillent avec moi à la télévision, et il y a une personne euh, qui fait partie de genoux de Rafa, il me dit vraiment, je ne trouve pas de problème lorsque je fais le montage de l'émission avec notre chère, parce qu'il n'y a pas de problème de lumière. Il, met des, des, couleurs vraiment jolies et gaies et qui donnent beaucoup à la caméra, il avait une grande intelligence. Et ce qui était bizarre, c'est que je viens avec une couleur et je ne, me je, ne... je ne prépare même pas les questions. Et il vient avec une couleur, avec un décor, et il y a une harmonie, comme si c'est le bon Seigneur qui fait la réalisation, aussi le scénario. Et c'était Rabbani. Et il me dit, on ne trouve pas de problème, il n'y a pas de coupe, il n'y a rien il parle avec une grande spontanéité. Mais plus, avant même de terminer mes questions, il me répond parce qu'il sait ce que je veux dire, comme s'il a vraiment le savoir de savoir qu'est-ce que je vais poser comme question. Masha'Allah. Rahmatullahi ala Sheikhna. Son éminence, docteur Ibrahim Mahmoud, était l'une des figures les plus brillantes de la Ummah. Il a consacré sa vie à la propagation de la science et à la clarification du message de l'islam et de ses objectifs à des millions d'individus du monde islamique et ainsi qu'à des millions de nos musulmans qui percevaient son message, ses idées et ses efforts intellectuels. Il était le secrétaire général de la Rabita des Oulémas du Maroc et du Sénégal, président de la Jamiatou Ansaruddin, membre de la Ligue islamique mondiale, comme il fut un habitué des forums et symposiums culturels dans lesquels sa connaissance et son expertise étaient sollicitées. Nous avons eu la chance à l'USESCO, depuis sa création en 1982 de bénéficier de ses fructueuses contributions. Personnellement, j'avais des relations solides avec lui et cela m'a beaucoup servi. Il m'a souvent rendu visite durant ses séjours au royaume chérifien du Maroc pour les besoins des cours assanites ou autres séminaires. Il fut toujours un immense plaisir de le rencontrer et de ah, s'asseoir avec lui pour échanger sur des questions concernant la Oumma. C'était un savant, un sage très modeste, amical et prompt à servir les intérêts des musulmans et à l'avenir de la nouvelle génération. Oustaz Baram Diop respectait et avait de bons rapports avec les disciples des autres confréries. Il prônait véritablement le dialogue islamo-chrétien pour preuve, il avait fait une conférence dans une église. Moi, il m'a dit, je tiens de lui-même, qu'il était prêt à aller partout. Il m'a même dit qu'il a fait une conférence dans une église pour éclairer les chrétiens, pour éclairer ceux qui n'étaient pas musulmans. Donc c'est dire qu'il avait une très grande ouverture d'esprit et quelqu'un qui était prêt à aller partout où euh, son, n'est-ce pas, sa, connaissance était, était était demandé, son expertise était demandée, donc très généreux euh, et très disponible, euh, toujours prêt à, à aller intervenir, à donner des conférences. هؤلاء الأعلام هم الحاج عبد الله ناس وتاريخ الميلاد الذي أشرت إليه الآن تاريخه عام 1847 وبعد سبع سنين كان فدرب يخطط ويستولي وكان ميلاد الحاج مالك سي وميلاد الشيخ أحمد بامبا أشير إلى الشيخ منتقى طال وهم المؤسسون للجمعية مع السادة المغاربة إذا ذكرته ومن معه ذكرت ذرية الشيخ عمر الفوتي المجاهد العالم الفقيه المالكي الأشعري التجاني المسلم أقام ما يسمى بدولة التجانيين في غرب إفريقيا كما سماه احد المؤلفين وما زال الخير في ذريته الى لحظتنا هذا وهنا الشيخ يمثلهم واشير حسب التسلسل السني او او او حسب السن الشيخ عبد العزيز ابن الشيخ ابو بكر سي ابن الشيخ الحاج مالك سي الشيخ حاج مالك سي رجل علم وفقه وادب وشعر وتصوف وجهاد استطاع أن يحافظ على الذاتية الإسلامية وأن يعبئ شعبه كما قلت في البرلمان وكأن حلقات ذكر عندهم صباحا ومساء سمفونية مقدسة جمعت السماء والأرض فأصبحنا والحمد لله كأن لا أثر لوجود الفرنسيين في بلادنا تلك المدة الطويلة والشيخ عبد العزيز بالذات هو آه، رئيس الجمعيات الإسلامية في السنغال ثم نأتي إلى الشيخ عبد الله إبراهيم نياس ولا أزيدكم به معرفة فهو عالم وابن عالم وحفيد عالم فجده هو الذي جاهد وعلم وصبر وصابر وأبوه كما قلت في البرلمان قد بنى أخوة إسلامية من سنغال إلى وادي حلفة في السودان فحيثما حل عارفه أو منتسب إليه يجد أهلا بأهل وجيران بجيران ثم يأتي محمد كنت من ذرية الشيخ الشيخ مختار الكنت الكبير بيت علم وجهاد وفضل وولاية كالآخرين وكذلك حاج مالكسي ولو أنه من نفس ذرية ولكنه ابن الخليفة آه، شيبة الحمد الشيخ عبد العزيز سي الخليفة العام مولم mag ñi Sénégal wax موم ci moom li تودي ci موم لاكو ci نينا laa ko déggee nee na mas na nuyu ji sëñ bi mu demee ci moom mbooloom moom ak mbooleem euh, mbooloo moom jiite woon ay ministère nga fa ak lu nekk ña nga fa woon waande biñ demee di ko présenté loo xam ne ci diine ji lañ woon dem di ko ko yëgali bañ demee ba yegg ci moom bañ defee lañ la ñuy waxtaanee ba pare euh, alors ba ba ñëpp génn moom dafa ñëw des ci gannaaw ñëw comme nee na moom loolu euh, nu muy doxalee la ci diggante moom ak kilifa dafa des gannaaw ñëw nuyu sëñ Abdou Lahad sëñ sëñ Abdou Khadir Mbacke mais nee na bi mu ko nuyoo daf ko wax euh, ah, man la oustaz mu ne ko man daal barki démb dem naa Kaolack yow laa njëkk a laajte mu ne ko ah mu ne mel ni ku xaw a yéemu noonu daal mu ne ko waaw parce que yow depuis mille neuf cent depuis mille ba nga demee Pakistan ba léegi maa ngi toppatoo say mbir mu ne ko la yooyu boo mu ne bi mu ko waxee depuis mille neuf cent soixante ba léegi maa ngi yittewoo say mbir oustaz ne ko ah mu ne waaw parce que nee na mag ñi li leen yitteel loo ci laal da ngay mujj yitteel leen loolu la ko tontu ci ni mu ko nettalee mu ne nga bàyyi boobu ñu teg ci quelque temps mu jël àndaat ak xalifa Mawlana Cheikh Ibrahim alxaaji Abdoulaye Ibrahima Niass ñu dem nuyu ji sëñ Abdoul Ahad nee na bañ defee la ñuy waxtaanoo ngan nga ba mu jeexee moo des gannaaw ñëpp nuyoo moo mujj nuy ba mu nuyoo sëñ Abdoul Ahad Mbacké nam ko nettalee ci fullaam di rajo daf ne ko bëgg nañ ci yow te nee na loolu lu tuuti la mais lu poids bu poids bu rëy lay lay lay donc. foofu tamit wax na ci loolu ci mag ñi ci lu mag ñi wax ci moom ci lu rafet dem na laayeen ànd faak mbooloo moo xam ni moo leen jiite te dara yëkkatiw leen lu may dox lislaam bañ demee ci maam raan tamit ci laayeen bañ waxtaanee ba pare maam raan ki mu àndal doomam ji mu doom jug génn mu ne ko oustaz mu naa mu ne ko na nga xam ne de boo ne bismillah ci télévision mbaa ci rajo ba ba ngay wax asalaamaaleykum na nga xam ne maa ngay déglu de mu ne waa papa loolu moo tax du lu ma neex ma wax de xam nga loolu kon lu rë lu rëy la. Barham dama bëgg a wax ci biir Sénégal ci biir këri diine yi nekkoon na ko trait d'union la boo déggee waxam loolu la sama baay boobu wax xalif moo dëgg pire la booy wax duma nangam parce que xamoon na sensu responsabilité bi mu yor lislaam ku ko yor da nga war a dajale mais waroo wax luy tas kenn. ki nga xam ne ni nag. man sama diggante ku nekk am nga koo koo ko gën a koo gën a xaritool waaye man man jàpp naa ne mbooleem sëriñ si ku nekk xaritoo nga waaye ni meloon ak maam Abdou Aziz Dabakh néew nit ku ko mel ak moom ci kaw suuf te maa ngi dégg mu nettali ci moom te daana ma nettali li may doon doon nit ku xeebu wax dëgg yàllam waaye li ma ci fàttaliku daal nee na mus na dem ci mbooloo moo xam ne maam Abdou Aziz Dabakh dañ ko ko fa invité mu dem ñëw Euh, moom dafa yéex a ñëw moom oustaz mu ne bi muy génn dayeeg moom Abdou Aziz si Dabaax di génn mu ne bi muy génn alors ñu ne ko signalé ko ne ko oustaz Barxam mi ngi ñëw donc ci noonu mu maam Abdou Aziz taxaw mu ne bi mu taxawee oustaz ñëw mu ne oo leen ma Barxam oo leen ma Barxam mu ñëw parce que kii dama ko yàlla def cofelam ci moom ci sama biir xol. bés bi ma mujj wax ak sëñ Abdou Aziz radiyallahu anhu OFM gi dañ ko oo ci semaine de la gastronomie euh, gastronomie marocaine mu oyof ma dem fekkee ko ci ci bañ koy tëj ci Novotel moo ma njëkk a dem sax ndax ma bi may dugg lay génn am ku ko signalé ne maa ngi ñëw mu taxaw ne Barham ايت به ان الله جعل حبه في سويداء قلبي من وخم صباح جواي لك تري من شن اللي انا من لكم يلا دف كفيرن سما بير خل اولئك ابائي فجئني بمثلهم اذا جمعتنا يا جرير المجامع وانا يمل لون غيني الحاجه عبد العزيز في برامج يوم مصر يوم ديكو سيتي عندك doomu bayam di doomu bay Mouhamadul Amin ñu naan ko Baba Lamine fi ci pom bi dafa nuyu dafa nuyoo rek góor gi shaahir la mu sadd ñaari beete ci baram ne barhamu barhamu inni la mushtaqun li li ru'yatihi tul ahdi bihi لمشتاق لرؤيته لطول عهدي به بشراي لقياه وانبرام wa فخرا وعزا والسيادة أن شيخ المشائخ في الإسلام رباه te loolu dëgg-dëgg bu ko waxee ñun ñun gëm nañ ko ndax góor googu képp ku mu bëggoon rek yàlla moo la bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa moo la bëgg. ñëpp la amanteel amante naa ñëpp fii man la fi gënoon am na ñëpp am na ñëpp am na alaqa ndax ñëpp lu baax lay wax ci ñoom ñëpp lu baax lay wax ci ñoom su ko defee mën naa ni doomu kër diine yëpp la woon ñoo ñu doomoo ko nag mhm. wala ni ko yàlla bi et puis bariwul wax ku teey la mhm. xam ku teey bariwul wax euh, lu mu xam moo koy xamal boppam waaye du ko wax kenn ne si kaana mutawaadi am waaw ba noppi itam ne ku modeste mhm. ñun euh, man li ëppoon man lay waxal ñun suñu waxtaan guddi lay doon mu ñëw fekk ma sama néeg wala mu fekk ko ci bu ñu tukkee hmm. dañuy toog di waxtaan ba dégg ñu nottu ci jàkk yi mun ma biir de set na ma ne ko waa xanaa ñu dem naan def toujours ah eh, dégg naa ne ñu ne eh, eh, al amin alxaaji abdou aziz si dégg naa ba góor gi génne àdduna ba mu fa demee def na fa seede wane ne baraham du fen mukk baraham du jëw برحام دو واخ لودو دغ تلو رك دوينا دوينا ميريت دا باسكو ينتبي صلى الله عليه وسلم بين كو لاجي جيكو يي بو ني ني نكو ناخ منا نيك اندك جولي دافنا ديد دافنا واو مي بين كو ديف دافنا فن موم جولي دوكو ديف كون بوكو كو ملني سي عبد العزيز الامين مي ني داكانتل كو وركي تاخوي كي دجيم تاني جيكو ييب ني برام دو فن لو رك دويون سيدي كوم موم دونك لي ما واخ ييب دوغنا فوف كودول فن لو ني من نكو نيك كودول فن لو ني من نكو ام kon yàlla na yàlla taas ci barkeem. wóor na ma ni day Sénégal gi Cheikh Ahmed Tidiane Chériful Fatimi Barham job Cheikh Tidiane xamna ni Barham job ci ñimu am Sénégal la bok ndax don kon ngeen d'accord ma wacc balam mu tardé gu di tay gi ak ak limu fi wax. ndax don doonte kon ngeen d'accord mu wacc baraam mu tardé gu di tay gi ak limu fi wax. motax tax ko ñaané ngant mayu ko ko. waaye bi mu ñëwee it xol yëpp sedd na. waaye foog na ne bi mu ñëwee it xol yëpp sedd nañ guy. kon Ibrahim ñu ngi lay wax jërëjëfati. wala jërëjëfati. wala jërëjëfati. Eh, xol yëpp dund nañ. xol yëpp dund nañ. jotaay bi. jotaay bi. mat na ba noppi. da nga ñëwoon pour siyaare si Cheikh Ibrahim di radiyallahu anhu. wax na ak yéen. wax naa yéen ci làmmiñu baraam jóob itam. rabiu cheikh nga xam ne bàyyi ko yaral boppam. nga moo ko yaral boppam. ànd ak moom ci teew ak ci tukki. ànd ko yu bare bëri yoo xam ne jàngalu ko keneen. jàngal ko keneen. lii nag noonu la mën a demee. la mën a demee. ndax ku xam bàyyam Mahmoud Diop. ndax ku xam Ah, ak nim jeexee ci Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu te li jiitu muy jeex ci moom dafa jeexoon ci El Hadj baayam kon tey ñun ñëpp dañ nangu ne yàlla fay na ko ci baraam yi. Oustaz Barham mooy koo xam ne matal na la taxoon baayam turandoom xaritam soppeem. ki ko sol te cut te mooy Baay Ñas moo ko joxoñ muy benn baaraam ci baaraamam yu bari te loolu mooy woon kéemaan boo xam ne nu jamono gën a doxe ñu gën koo gis li yàlla waxaat ne zarni wa man xalaqtu wahidan bàyyi maag koo nit doomi aadama parce que doomi aadama bu ma koy bind kenn fekkewu ko man kenn kese la li nekk ci yëpp maa ko def ci moom kon oustaz daal dafa mel ni bàyyi bi mu ko préparé ba pare loolu la bind ci kawam zarni wa ma xalaxtu wax yi dañ kii moom bokkuma ko kenn maa ko préparé sama bopp. seede boo xam ne maa ngi koy wax te yaakaar naa ne mu ngi door dugg ci noppam wala man waxuma ko ko toog naa ak Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu mu am fu waroon a dem am ngant mu téléphoné baraam fekk mu nga tukki wax ak moom ne na continuer bàyyi li mu nekkoon dem foofu fekk mu ngi doon préparé am lu mu doon bind. mu daal leen ne jaru ko am na ku ko doon dicté nga di ko bind mu ne jaru ko comme jot nañ baraam baraam fu ñu teew maa fa teew ci jëmm ci melo ci zahir ak baatin te lu mu wax maa ko wax lu mu bind maa ko bind ma ne loolu doy na ko puukare doy na ko ñu seedeel ko ko ba péncam yàlla il faut un recensement exhaustif de toutes les conférences qu'il a données au cours de, de, sa carrière de plus de 50, je dis peut-être 60, euh, 60 années, tout ce qu'on a pu enregistrer. Donc, euh, euh, enregistrer, classer, cataloguer et mettre en ligne de manière à ce que les gens puissent en bénéficier un peu partout. Je crois que ça, c'est la meilleure façon de, euh, faire profiter de ces connaissances à, tout le monde. Le mardi 24 juin 2014, la communauté musulmane venait d'apprendre le décès d'Oustas Barham Diop au Maroc, à l'hôpital Mohamed V, à l'âge de 82 ans la nouvelle fut propagée dans tout le Sénégal et à travers le monde. C'est la consternation et l'émoi à Medina Bay. yal na yàlla yokk leeram njobootam gi mbàyyi gannaaw yal de dese colère. te ñun ñëpp yàlla dolli ñoo taaj ci barkeem parce que lim ñu fi bàyyil doy nañu yóbbal ba bañ koy fekki. que Dieu l'accueille dans son paradis avec son cheikh avec Cheikh Ahmed Tidiane avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. طبيبي قريب هل سقامي تسمع يقابلني يوم المقفى المشفع أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آمالي كما أتوقع